li day woné né président Macky Sall rek mo ñu ñoo li day woné né ñun ñëpp dañuy liggéey pour ndamu président Macky Sall looloo tax ñu woote tay conférence de presse bi pour wax ak étudiants yi wax ak jeunesse parti bi parce que nekkatul mbiru étudiant kessé mais jeunes yi étudiants yi ñom ñëpp wara war taxaw pour jàppale le président Macky Sall à travers les candidats investis dans toutes les communes et dans toutes les communes du Sénégal ci ont nak dañu di le président Macky Sall ndax tay suñ démé baña élection locale campagne bi le 8 à minuit am na ñu bëri ño xamné dañoo jàppoon ne loolu du am dañoo jàppoon ne élection yi dañ koy reporter parce que dañoo parewul rek mais président won leen ne dañ sénégalais dañ maa fal en 2019 renouveler seen confiance teewut ma ne ne ñoon ñëpp ñëw leen ñu toog waxtaan ci la initier le dialogue national ci dialogue national boobu mu am poñ bu am solo muy le dialogue politique lolo ñu permettre tay ñu nek campagne électorale pour le scrutin du 23 janvier 2022 lolo qui da am lu muy wund da am gis politique bi une démocratie solide une démocratie qui xamné Sénégal Afrique le monde tout entier reconnaître la démocratie du Sénégal. Reconnaître le Sénégal, c'est un pays démocrate. Mais yeb qui vision, xam xam, qui nga xamne mom lañu jité, le président Macky Sall motax ñu am résultat bobu. Ci bir lool nak élection locale lañ jëm. Campagne bi ubina. na ma japp ne Bokyaka. Bokk Yaakaar daa war a wonewaat ne réew mi moo fi ëpp doole parce que ñu sommes am suñu kanam nekkuñ fi ndax soxor nekkuñ ci ne lu dul taal réew mi la nekkuñu ci loo xam ne lu intérêt mais pas Sénégal ñor raison pour laquelle vous en tant que mouvement élèves étudiants républicains ma leen di ñaaxaat di leen jox ay directives parce que nag xam naa seen taxawaay xam naa seen attachement xam naa seen courage politique pour jàppale le président Macky Sall ma jàpp ne su ngeen ci sooboo rek mbalaa midi mbalaa midi ñu tagook ñoom Nous avons 601 communes, une commune villes mais ci biir le mouvement élève étudiant républicain a traversé ses démembrements les maires départementaux les maires communaux Je leen di sant di leen ñaax terrain bi dem mobiliser les ci candidat yi nga le président Macky Sall moo leen tànn ci gox yi ak goxaan di len demander wat affaire bi travail de proximité la affaire bi djegge population bi la dugg ci waañ yi dugg ci salon yi dugg ci marché yi dugg ci jumaa yi wax ak askan wi parce que nak président Macky candidat ñu investir yëpp dañoo war a gagner parce que profilu candidat yi ñu am suñu programme yi nga xam ne moom lañu am moo gën a baax ci profilu ñeneen ñi moo tax ma ne dañoo war a gagner mais ci biir loolu aussi ñu war a rappeler population bi li nga xam ne président Macky Sall def na ko ci gox yi ak goxaat yi donc ci biir loolu so les PUDC mën naa ne léegi accès universel à l'électricité accès universel à l'eau les pistes de production rurales, le piment, ñëw fii promovin bourse de sécurité familiale donc loolu yëpp président Macky Sall da koo def ci askan raison de plus raison de plus askan Warko war à travers les candidats investis dans les différentes communes et dans les différents départements ci biir loolu le maire national du des ginnaaw parce que musul des ginnaaw parce que nous, sommes waxantee de ci biir parti bii ñu ne kenn daqu ko mobiliser ci parti bi ñu ne ken ëpp ñu engagement ci parti bi ñu nekk ken ëpp ñu fit donc yaakaar naa ne tey mair national ñoo war a def liggéey bi wone ngeen ko dama leen di woo ngeen wàcc ci terrain dem liggéey ak candidat yi nekk ci terrain bi yor ngeen xam-xam bi am ngeen énergie bi am ngeen kattan bi donc liggéey bi yéen a ko war a def nañu dem wax suñu waajur yi suñu kilifa yi pour que ku nekk ci gox bi nga ne ñu jàppale li nga xam ne mooy candidat yi président teg parce que ñun nous sommes une structure disciplinée qui respecte les directives du parti ñun duñ jàddu gauche li président wax rek lañ wax lu président tere dañ koy bàyyi duñ ko def mais lu mu bëgg lu mu bëgg dinañ ci jiitu lu mu jar dinañ ko def te élection yi dinañ def loolu wasalaam maa ngi leen di gërëm